boo ko jubee dina dina dina Thank you. soxna si noonu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. ñu ngi gërëm di leen sant aussi. ci wax dëgg ne yàlla teewaay bi rafet na. jàpp ngeen ci bi mu dog bee ba léegi. alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax ah Pape de li ci mën a wax ci moom. bëri na mais tuuti rek lañ ciy wax. mbaaxam. jullite. alalam du ko booleeg nit. ak dox mbokk. wax dëgg fu mbokkam nekk dina fa taxaw. baax na bëgg na mbokk. xale moo koy yendal ci mbedd. lu mu gis jënd ndax mbokkam dencul dara nag dencul dara ba ni mu demee fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu yàlla fay ko xolam ku baax la ay mbokkam yëpp a ko gën wallaay baax ku baax jërë ngeen jëf. dem gi nan la ko demee dafa feebar woon wala nu mu demee. dem gi nag man fekkuma fi wax dëgg neex yàlla man Thiès laa dëkk biñ ma wooyee wax ma ko rek si laa ñëw fekkewu ma ko wax dëgg neex yàlla mm-hmm. fekk. xanaa yàllaa ñëw rek dem yàllaa ñëw rek comme ni ñëpp di demee rek amin amin amin boo doon amal benn témoignage bu ndaw rek jamono ji paap ginnaaw bu mu fi jógee ñu ko ñaanal bu baax a baax yàlla yërëm ko xaare ko àjjana ngeen ci nuyu leen sant sama mag la bokk ndey baay maa topp si moom ah, sama xarit la mm-hmm. baax la mm-hmm. bëgg nit bëgg ñëpp ni mu mel si mbedd mi la mel si ñëpp ma leen koy jaale yéen tamit ndax yéen seen liggéey rafet na am na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana bu kawe kawe ak bépp néew yu mu fa fekk ñëpp mboolee jullit buñ ko boole yéen si rajantam baax na daal man mun ma wax yow mi bokk ak moom day ak baay xam nga kooku sori na ci yow waruñu wax tey Pape ci dëgg-dëgg moom mooy kan Pape ban baax na de ku baax eh, la de baax na dina foo dina kaf dina bëri alalam du ko boole kenn billaahi baax na torop yal ko yàlla yërëm daal yàlla lafal ko cat daal na ñoo ngi lay masaw bu baax a baax métti na man damaa ko mag mais man sama responsabilité yëpp mi ngi ci moom ak samay doom waaw papa Demba daal yàlla na suuf sedd si kawam papa Demba mm. wéetalul kenn man la wéetal ndax man lu ma nit ne ragal a wax papa Demba tax papa Demba moo tax papa Demba yàlla na suuf sedd ci kawam te yàlla xare ko àjjana papa Demba ko yàlla yaram xale ko sa waajur la tey mu génn àdduna mu nekk lu métti ñu la ko jàlle bu baax a baax di ñaan yàlla xari ko àjjana boo amoon kay benn témoignage boo def ba ma sa papa lan lay doon. bàyyi bu baax la bàyyi am respect ci ñëpp am fulla fayda man mii chaque jour loolu nag ndey na nga am fulla am fayda am dignité fépp foofu fu la neex taxawal fu la neex doxal kay ñaanal nekk ci àddina yu gën a kawe kana man mii sama jëm bopp mardi ba barkaati démb dem naa hôpital fan seeti ko parce que Alioune Badara mii moo ma informé woon man nag yii ma ne lu ma amoon nag danaa ko ba dem seeti ko su ma ko gisee muy li ma gënal xayrun su ma ko gisul na yëg fa mu tëdd nii ñëw naa dox naa jéego yi euh, artiste comédiens yi nekk ci senegal yëpp rawatina bu Arcot waaw mu demee doomam laa fekk ak i jarbaatam ak i rakam yooyu waaw mu nekk lu lu yéeme nag. waaw mu nekk perte bu mag gannaaw yow bi nga perte sa wajur ba pare ndax si loolu nga jógee juróom-ñetti fan yi sax mu ngi doog a ñëw ñu ngi koy jaay itam bu baax a baax nga ñëwaat amaat beneen perte muy ki nga xamante ne mooy Pape Faye mooy ki nga xamante ne mooy Pape Demba Lam. ngeen amoon kóllëre nag ngeen bokkoon nekk Arco de Dakar. waaw loolu la ñu bokkoon nekk Arco de Dakar gannaaw bi nga ba ma ko jaay ba ma ko demee seeti ji sa lëf laa dem def huitième jour sama yaay booy boobu li gën àdduna waaw di ci remercier toute l'ASCOS parce que ñëw nañu ak doole euh, Pape Demba Lam nag dafa amoon taxawaay bu am solo bu mu newoon au niveau de l'ASCOS waaw xale yu bare foofu bokk na leen formé ak Alioune Badara mii muy dama koy wax tout le temps Pape Demba Lam nitu xadar la mais xadar bu positif la nitu dëgg la mais dëggagu positif boo defee lu dul noonu ak noo mun di toll rusewulu ko nag daal koy wax foofu waaw daal koy wax teg ci bakkanam nag am na fit am na fayda am na passion ci métier bi te da koy incarner tout le temps waaw la preuve am na compagnie bu ma créé ñii nga xam ne ñoo liggéey ci compagnie bi ñoo lay wax kan mooy Pape Demba Lam moo tax ku nekk ak moom fa nga am fa nga am xolu muñ parce que lépp ci dëgg koy teg da nga ma teg ci règle teg ci yoon mais avec le respect qu'il faut waaw kon nag mu nekk perte immense pour ñun euh, beneen bi mooy <clears throat> man damay étudier personnage parce que boo def métier théâtre dangay xam psychologie personnage da xam psychologie nit nit ki dangay xam morphologie nit ki parce que théâtre du falaa falaa xam ça bi ma waxtaanee le président Aliou Badara Bey mu ne ma dama bëggoon daal le sacre de Ceddo bu ñu ko mënoon a porter à l'écran par l'Arcos de Dakar ma ne lii dana ma neex ñu jël ko waxtaan ci ñoo am yéen ngi nii moo xool personnage principal u Sakho du Ceddo ma ne kii Pape Daba la c'est comme si auteur da ko bind tout simplement pour Pape Daba Lam parce que xadar bi nekk ci le Sakho du Ceddo ci personnage boobu lay moo nekk ci pab Daba Lam c'est une œuvre capitale une œuvre classique boo xamante ne bii c'est une école waaw mu def ci lu yéeme nag malheureusement ñu dool ko deux fois à la télévision les gens retrouvent, peinent à retrouver maintenant les roches ils peinent à retrouver la pièce mais ñi ngi koy seet parce que yii moo tax ñu wor di denc ay euh, ay œuvre dramatique waaw waaw euh, bi maa ngi fàttaliku temps bi muy joué Aïda Souka ma ngi woon ca biir Aïda Souka voilà ko njëkk a découvrir d'abord comme euh, comme acteur boobu Moussa Diouf qui était professeur au conservatoire moom moom monté woon pièce bi ànd ci ak waa Daaray Kocc Aïda Soukra mu def ci liggéey bu am am solo kon nag ku mel nii bu ñëwee ñu ñàkk ko dañu koy jooy membre ARCOT la wax naa ko au départ tiis wi dal nañu dal na ci ARCOT dal na ci axlu théâtre moo tax ñun ñu ne festival bi ñu naroon a duppee bi ñu waroon a euh, def du o vingt 28 dañ koy toxal amul nga ñu koy tax waaye Facebook ara tax ñu koy taxal parce que dafa am ku ñëw sànq mu ne ma bakk demoon euh, fan yële passé dana wax nag Pape dembalam ñu tase ci benn atelier tailleur mu ne ko Pape looy def fii mu ne ko damay ñawlu lu may yóbbu Kaolack damay ñawlu yére bi ma yóbbu Kaolack benn yére bi noir et blanc la. loolu la waaw xoolal rek ku am yëg-yëg boobu di préparer festival bu toll noonu la yàlla dogal mu dëddu ñu ànd ak moom rek daal di ko rendre hommage incha allahu rabbi fan yii di ñëw. ok ñu koy a baax. merci beaucoup. voilà ñu daal di continuer ak président Alioune Badara Bèye président des écrivains moom itam nga xam ne yàgg nañ ko fekk kër Birago muy def liggéey bu am solo macha allah. <laughs> dinañ ñëw dinañ ñëw président dinañ ñëw. Hmm? est-ce que duñu toogee nii est-ce nii du gën a baax. waaw. d'abord voilà ñu toog ak président Alioune Badara Bèye président des écrivains président ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax. c'est bon voilà ñu ngi toog ak président Aliou Badara président des écrivains borom kër Birago nga xam ne yàgg nañ ko fekk di liggéey ak moom sa am solo président ñu ngi lay nuyu di la jaale li ñu bokk. maa ngi leen di fay bu baax di leen delloo si njaal mi ndax ñoo ko bokk comme ni ñu ko waxee euh, Pape Demba ku daan nourrir aar la te dañu ni quand boo demee ci àddina ba perdre lu bari dara mooy resté Senghor daal na ko foog c'est la culture qui reste. daal noo wax ni quand je j'écris j'écris en français mais bu may rêver damay gént séeréer moo tax culture nekk lu ar lu dëgër Pape Demba dafa nekkoon d'abord mbokk la ensuite xarit la mais li ñu gën a rapproché vraiment mooy c'est un comédien total mais comédien la bi nga xam ni li ci Pape fay wax moo ci nekk dafa ànd ak benn xadar xadar boobu dural bu nekk nga koy jox dural dural bu nekk nga koy jox mais bi mu pa bi mu bi ma waxtaanee ak Pape Faye rek Pape Faye ni ma kii rôle principal bi kenn rek la Pape Demba la parce que xadar bi nekk ci moom nekkul ci benn comédie te daf koy dund accoutrement am habillement am démarche waxam ak xam-xam bu bu mu am parce que dafa am xam-xam bu ñuul de de am na am am ay xamb am ay kii am na comédien bu mës di répété ñun daanu daf ko yëkkati daf ko daf ko yëkkati ndax ay suy ko ay kii ba mu jóg ñu cocc dafa am ay ba terewu ko jàngal xuraan donc euh, pièce boobu bi mu ko commencé répété première fois ma dem répétition bi rek laa ni man defoon naa ni Saaka du Ceddo version wala euh, française bi nga xam ne ay ponk rek ko joué woon euh, du ma gis ñeneen ñu ko joué ci dimension bi mais kii il est allé beaucoup plus loin donc mu nekk nit ki nga xam ni il est entier buy joué buy joué daf koy sentir parce que du def interprétation moom li muy def. day incarnation lay def day rentre ci peau personnage ba nga xam ni bi ñuy joué le sac du Ceddo fële ci euh, RTS ci cour ba ñu implanté décor beeg yëpp mu des seen bu mujj bi nga xam ni le roi mort te temps yooyu dañu daan suul bu ñuy suul buur yooyu dañ leen daan taxawal buur Ceddo yi alors ñu wax ko donc ñu liir ko joué ko mook Pape Faye ñu waxtaan si mu ne Pape Faye trouvé naa méthode bi ñu waxtaan ba bi mu bi mu bi mu deewee ci pièce bi ñu taxawal ko mais mu taxaw taxaw benn moment ba caméraman bi jékki-jékki coupé caméra bi ñëw ni ma mais grand du ngeen vérifier parce que waa ji noyeetu la ah. alors ndekete noonu mu taxawee dafa àcc rek ruu gi mu ne parce que bëggu moom ba jël suma noyyi may su konde ni deewul mu ne ma donc loolu c'est pour dire professionnalisme bi mu am de kii boobu scène boobu kenn mënu ko nettali boo ko seetaan dafa taxaw mel ni kii nekkatul effectivement bi caméraman bi dellu see continuer ba séquence bi jeex mu daal nekkaat delluwaat ko munu ma bu may joué du ma euh, kii damay incarné damay dugg ci biir donc comédien la bi nga xam ni euh, vraiment tragédien la moo tax euh, ni ko Pape waxee perdre nañu ko un grand un grand comédien un grand acteur joué na yeneen kii ah, am na bu mu joué sur les morts boobu muy wax ni delloo ma delloo ma suma cër ah mais boobu aussi daf ko créé mais su suyee effectivement ci pièce su kii boobu la daaral ko ci boobu man laa ko jëkk gisee mais bañ naa ko ba daaw ma ko wooyee Pape Demba Pape Demba dama naan wax Pape Demba laam ndax ndax lam yi ndax lam yi mu ne ma njaay bi bu ko dindi njaay bi ma ne ko lam dindi su boo dindee lam yi rek ma dindi ko mu ni ma lam yi nag du deñ du ko dindi. li waaw lam yi du ma ko dindi mu te te effectivement mhm. euh, euh, euh, dégg naa wax nañ ko sax mu tekki lam yi ndax ni mu doon seeree circulation sang ak yooyu mais dafa bañ donc vraiment ma koy jaalee ñoom Pape Faye Arcos parce que ñoom ñoo fond ñoo ko fond ñoo fondé Euh, Dakar et national donc euh, mais Pape Faye da daan déggoo Pape Faye parce que Pape Faye le comprenait très bien dina am xadar acteur bu mal joué dina naan mauvais baaxul baaxul on reprend yenn saa yi nga mer mais Pape Faye le comprenait moom donc mook Ndiaye Doos woy yi ñu indi ci la sac du ceddo doo leen dégg feneen doo leen dégg feneen xaw ma fu ñu ko fente xawma fu ñu fente wa yooyu mais doo leen dégg feneen alors donc vraiment ñu koy jaalee euh, toute la communauté artistique di ko jaalee autorité yi di ko jaalee le ministre de la culture le président parce que il aimait beaucoup cette pièce am na un jour daf ma ni maa ngi lay féliciter keroog Sorano pour le sacre du Ceddo mat ma ne ko mu taxaw ni ma non la version wolof donc seetaan na ko plusieurs fois donc euh, di di ko jaale ñoom Pape fay parce que euh, perdre nañu élément bu mag très difficile à remplacer très difficile te biñ ma defal hommage yi fële grand théâtre ci ñëw ni ma ah ñun nii grand théâtre ak kii yëpp artiser footballeurs yi ñoo lay sargal mais man ak arcos man dama la bëgg defar sama arc sama sargalu bopp te duta sekk laa koy defee mais malheureusement jour boobu nekkuma fi woon mais mu defal ma benn coupe bi nga xam ni biñ ma ko indilee dama moo moo ko indi ni ma nag damay voyager suba damay dem Burkina Faso ma ni ko ah ma ni ko ñun de lébu lañu képp ku ñu ji teraanga dañ la koy fay ma ne ko nag bëgg naa teraanga bii nga ma defal parce que man li ma jot ci trophée pour na cent mais ma ne ko lii trophée bii nag moo dàq ci trophée yi ma amagum yëpp ma ne ko nag dinaa dinañ la defal aussi benn fête fii yow ñu sargal la Kër bi Birago boo demee ba dellu si alors mu ni ma donc euh, mais comme sac du ceddo bi wax naa pap Faye il faut ñu reprendre ko donc ma ciy jox boo ci desee quelques pièces ñu wër ba de trouver deux ou trois pierres jox ko ko mu ne ma jàngaat ko comme ça bu ma dellusee ñu reprendre ko alors donc loolu moo doon suñu dernier entretien il est parti en voyage on mois je mois aussi j'avais voyagé on ne s'est pas revu ba sa bi ci guddi. Mm, ba àggul quoi mais xam naa ni euh, wax naa ko keroog mon fils euh, tonton Mag ni ko. œuvre boobu bu bu ko benn kii réaliser jël leen ki yéen seen i caméra ak seen kii ak yëpp nga gis Pape Faye ngeen réaliser ko parce que homa hommage la bon ci li ni mu ko joué mais gëw ma man keneen euh, joué ko comme ni mu ko joué gëw ko parce que doo am amul culture bi doo am culture ceddo bi ceddu ceddu c'est une philosophie mais aussi dafa nekk benn aristocratie bu nekkoon fi déplacé ay valeur valeur yooyu mu déplacé mooy valeurs yi nga xam ne mooy les valeurs anciennes ñun yu ñu amoon te daf ko gëmoon moo tax moom moo ko mënoon suy voilà maa ngi leen di ñu koy jaajëfal baax a baax moom président dañu gis que ni bu am solo koo xam ne xàmmee nañ ko ci ràññee nañ ko ci baax a baax ñàkk nañ ko muy Pape Demba Lam tey ban témoignage nga njëkk a amale nga mën a amal jëmale ci moom premièrement. waaw gannaaw ba ma sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suma ñaari waajur di leen ñaanal yàlla fa ñu ne ci àllaaxira yàlla na leen gënal fii Pape Demba Lam mi nga xam ne nit la boo xam ne bu ñu jege woon la nit la boo xam ne ci wàllu aar xamul tricher. li nekk ci moom bu dee wax xalaat loolu lay wax li nekk ci moom ci wàllu aar moom lay génne soxorul boo seetloo créé woon na groupe tuddee ko Ndumbelaan euh, yor si ay xale di leen tàggat possibilité bu ne mi ngi ko doon def ngir xale yooyu ñu gis leen ngir ñu am ay spectacle di di maanaam daal lépp loo xam ne mag bu nekk ci aar war na koo def ngir xale yi ko topp mën cee jariñu mën cee jàng mën cee génn ci loolu la tegoon tànkam donc boo pour wax la ni la ñun ñii tey li mu liggéey ci aar ci wàllu loolu may wax ci formation ci tàggat ay xale ñun defuñu ko defaguñ ko bokk et dañuy ñaan yàlla yàlla may ñu gudd fan ñu def ko mu doonoon artiste bu am talent man ma fekk leen ci aar ñuy samay mag ñu téye ma nag fonkoo ma fonkoon ku ma fonkoon la ku ma joxoon cër la man it ma delloo ko ko macha allah donc di ko ñaanal yàlla fi mu jëm yàlla na ko gënal fii lépp lu mu mës liggéey ci kaw suuf ci lu neex suñu borom neex doomu aadama yi yàlla na ko suñu borom fay ak ko muy ak yiw ci bàmmeel ba mu ba mu ba mu nekk ak mbokk yam fa fekk ak ña ko fay fekk ñëpp yàlla yërëm ko jéggal ko xare ko ci àjjana fay ko bégal gi mu doon bégal doomu aadama yi yàlla na ko suñu borom fay ci àllaaxira ci barke sëñ Babacar si ak barke yonante bi sax alors gis nañ que ni moom anam bi mu doon defalee di théâtre daf ci boole woon war war ma bu mat sëkk ndax bu ñu xoolee man maa ngi lire benn vidéo am démb mu ne wax ñoom jamono bi ñuy def théâtre dañ ko doon dañ ko doon sàng ba dara du ñaaw mu mel ni mbir moomu tey mi ngi doon wax que ni tey ji gis na ni mbir mi dafa xaw soppeeku cautionné ko àndu ci lu ni mel alors est-ce que du moom combat boobu nga xam ne doon na ko mën kon da ko war a continuer mën ngir théâtre a mel na meloon a jekk gën a te mu bañ a ñaaw benn yoon combat boobu la mës a mëne mm-hmm. moom euh, ñun ñëpp dañ koy mëne maanaam nit mën ngaa yedd doomu aadama bégal ko mu ree te doo wax musiba te doo wax safaan ñun formation boobu lañu ñu am moom jamonoy tey ku xam waa jamonoy tey daaray Kocc waa jànqeen bu Cees waa waa Ndar ku xam seen théâtre xam ne musuñoo yëkkati kàllaama bu ñaaw jublu ci bëggal musuñoo yëkkati geste bu ñaaw def ko te dañ daan bëggal doomu aadama yi ba ñu bëgg lu tax ñu des ci xolu nit ñi ba tey lu tax parce lañ doon defa rafet dañ doon def dañ ko teg ci yoon waxuñu nag la nouvelle génération góorgóorlu ñu ngi góorgóorlu ñu ngi def ay production mais xam nga idée bu ñëwee brute sa bopp li leen manqué ñoom mooy des encadreurs qui ont de l'expérience ñun dañ ko amoon daaw ñu def n'importe quoi ba dañ la daan topp ñu la daan encadré sax dañ la daan topp ba sa àddina bii nga nekk sa kër nekk seen kër di dox di liggéey dañ la daan topp ci loolu donc ñun nii rek la ñu mun a demee ñuy sàkku nag ci la nouvelle génération ñu xoolaat dañuy ñuy def saytuwaat mën nga reeloo nit te doo saaga mën nga wax nit ki fulla ak fayda ci dramatique ba mu seetaan ko ba yëg ci boppam te du ci gis dara loo xam ne lu ñaaw la. parce que démb maa ngi leer benn vidéo mu ni mu ni mu ni théâtre du téléfilm Sénégal léegi nu ñu defee théâtre dafa mel ñoom dañu ko jàpp comme téléfilm tubaab yi nu ñu koy defee est ce que du génération bi dañu am benn benn benn benn lu réeral ci seen xel bëgg boole benn mbir mi daal koy assimiler mu nekk benn. xam nga boo jàngee. théorie ak pratique bokkul li nga théorie boo ñëwee ci terrain bi leneen ngay gis beneen bi mooy la nouvelle génération de techniciens ils sont efficaces la nouvelle génération de réalisateurs qui sont des jeunes et et, et ceux qui écrivent les scénarios dañoo bëgg transférer cinéma ci télévision or que le cinéma et la et la les séries télévisées c'est pareil, c'est diamétralement opposé. Le cinéma, tout est permis. Parce que quand tu n'as pas 18 ans, amoo droit dugg saalu cinéma parce que tu n'es pas majeur boo seetloo filmu télé yi des fois nga gis ñu bind à droite 10 wala 12 wala 18 wala 16 là c'est moins de 10 ans ni ku amul 10 ans war ko seetaan ku amul 18 ans war ko seetaan et ñun dafa am lu ñu moom ñun dañu am cosaan bu yaatu cosaan bu ànd ak yar cosaan bu ànd ak diine ñun duñu ay tubaab duñu ay ñag ñag bi li muy wane loolu lay dund ñun sénégalais bi danga am danga war a am orma da ngay am kilifa ñu teg la ci yoon mais nag la nouvelle génération ñoom pour ñoom ñun n'ont pas besoin de nos donc euh, malheureusement koo ci dajal di ko expliquer sax da ngay gis bu lay tontu day xaw a naqadi mais daal euh, damay lancer appel ci la nouvelle génération liggéey bi mën nañ ko am nañu technique am nañu xam-xam mais nañu ut des encadreurs qui ont de l'expérience une idée qui sort brute si tu brute mooy indi saaga mooy indi xotti orma mooy indi wane lu rafetul mais bu fekkee dafa génn brut tu as un encadreur qui a de l'expérience koo xam ne am na kersa dina ko delloo defaraat ko ba mu rafet ba bu génnee nit ñi mën ko seetaan voilà donc il faut que loolu rek laa leen di lancer di sant yàlla di santaat yàlla bu baax merci beaucoup merci. mbokk internetu Dakar People comme ni leen ko waxee woon mu nekk perte bu mag a mag ci li ñu duppee le monde de la culture sénégalaise di Pape Demba mi génn àdduna mu nekk lu méttee métti lu nga xam ni mbooloo mi fi nekk da koy firndeel ay témoignages yu am solo jógoon jëm ci ñëpp xamee woon ko ku am fulla ku am fayda ku bëggoon li muy def également ku respecté woon métier am mu génn àdduna ñu koy ñaanal bu baax baax yàlla mi nga xam ni mooy yërëm ab jaamam yërëm ko xaari ko àjjana mu nekk tamit lu nga xam ni c'est la réalité de la vie parfois aussi dund ak génn àdduna ñoo ànd ba tax na moom tey wàllam wëy na ñu ko ñaanal bu baax a baax fa nga xam ni fa la jëm gënal ko fi mu jóge